toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Ndax ou pas Bon, moi je trouve que non. Parce que nous avons ñoo société c'est la vie tant que nous xamuñu suñu valeur liñ tant que xamuñu valeur gens valeur nous sommes dans la société. Nous sommes dans la société. Mais est-ce que nous sommes là Oui, mars, oui, mars, chaque année, nous avons le droit de la femme. Nous avons droit de droits. Nous avons voté, nous avons voter, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Mais ce qui nous manque, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que nous sommes ce qui manque? On ne sera jamais à la hauteur des hommes. C'est vrai on ne cherche pas à être à la hauteur des hommes. Pour plusieurs raisons, que ce soit culturel, religieux. Mais il y a un aspect on peut être bien sûr à la hauteur des hommes, mais professionnel. C'est ce que nous devons reconnaissance la société parce que la société nous verra toujours comme nous sommes daan on est des femmes et point. On sera toujours derrière les hommes. Mais quand on est dans une entreprise, c'est autre chose. Je ne peux concevoir que nous, jigéen à diplôme égal, égal parcours, nous avons ñu salaire au nom de quoi dañ sommes dàq est-ce que góor ñi dañuy guddee wàcc di ñu fi bàyyi fii Les gens fii ñi dañuy goudé. saa yu ñuy wàcc fii lañ ñuy romb te saa yu ñu xëy see fii lañ ñuy fekk ki fi njëkk a xëy si jigéen la chaque jour pourtant ñun bokk nañ ci ñi mujjee wàcc quoi donc à diplôme égal góor ñi duñu rawee dara je crois que loolu mooy la combat mais pas société bi nu mu ñuy gisee si volet culturel wala religieux ndax foofu mënuñu faa xeex ba am fa dara loolu dootul deñ mais dans les entreprises nak jotna na jigéen ñi dëggal seen bopp mais jigéen ñi sax yow buñ la bëggé jox poste de responsabilité sax jigéen ci bopam jigéen ñi ñoo lay xeex pourquoi pas on se su pourquoi duñu ante ñun jigéen ñi tay présidente tay bu jigéen néwon woon damay dem élection jigéen ñëpp buñ ko fétalon mu gañe lu tax jigéen ñi duñ ko jàppale parce que on se croit toujours inférieur dañ ñoo forcé ñun infériorité ba ñun dañoo jël infériorité boobu noonu def ko suñu atu ne ñun on sera jamais égal aux hommes mais intellectuellement lan lañu am ëppale cerveau lañu am ñu am cerveau il pense on pense donc man je pense que ni fii chaque année liñ fiy tase di ko waxtaanee bu déwénee war na am ay évolution xam ne tey ñun jigéen ñi dañoo gën a jëlaat suñu vie en main vie en main Bon, nag le milieu professionnel ñu wane que ni ñun jigéen ñi nous nañ man je prends mon exemple parce que ku nek sa bop doy na la exemple dëgg man góoru SAPCO yi lan lañ ma yobulé damay gaddu ay carton di len romb duñ ma jappalé ëppalé mais su ma toogoon di wax naan ñoma ëpp doolé carton ci suuf lay nek kan moko yégal du dëgg nit amul lu mu mënul su fekkee ne newul ne moom mënu ko yow yaay conditionné sa bopp ne man lii te créer des limites essaye essaye pour voir ma ne affronté leen ma xale yu bureau yi dàq ñu a ëpp ñu leen xam-xam dañ leen a sañ ëpp leen fit te yéen li leen yàlla may xanaa xamoo ko ñun rek la may ñu a deux trois quatre ba cinq métiers à la fois te on le fait tous parce que même bu nekkul des métiers yoo xamante ne c'est rentable fii ku fi wàcc sa kër boo demee da ngay bale raxas fa beere togg añ góor du ko def dem mënu ko c'est pas parce que du ko def ndax yaa da koo mënul du loo xamante ne dëgg la d'une part société bi dalay dalay dalay dalay day am yu mu lay teg mais d'autre part dalay jox ay atu yoo xamante ne yow sax doo ko xam à bas âge ngay nekk ak sa frère à chaque fois yow bu boo jàngee wàcc ñu ne la kaay raxas ndab moom mu dem tëdd tu as appris à bas âge à accumuler, des ay ay métiers du ko parce que jàngaluñ ko ko yow tu as tous ces atouts ngay watch, wàcc dem sa kër nekk sa ménage boo génnee yaa ngi ci petit business yi te du yakal dara tu vas gérer tes enfants et en même temps di nga gérer ses xarit gourbo bu amee ñaari liggéey bana ay xaritam ak i mbokkam ñépp dootu dem fenn donc lépp li nga xamante am nañ ko comme atu et acquis ma bëgg ñu concrétiser ko dëggal ko ci suñu bob. man je suis fière d'être une femme parce que nak, olof danaan jigéen buy wax nan, su ma doon góor soo doon góor doo def dara donc man je suis fière d'être une femme Et je sais que tout autant que nous sommes nous sommes fiers d'être des femmes di ñaan yàlla at mii ñu nekk yàlla nañ ko yàgg a suñu 8 mars et que chaque année nous gis des évolutions comme nous nous amee ci ren jii nii bu déwénee yenen responsabilité yu gëna mag génn ci jigéen ñi ndax nak mën nañ ko machallah di souhaiter encore une fois bonne fête di balu ñëpp ak di bal merci beaucoup. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.